dari dag ma, dag maa dugalaat ci doone sax fàttewu ma waaye da ngaa sama xel bisa sa di sa abri bu ndaaw mu ko fekk buur mu ne ma dama bëggoon nga génn def appel dajale ma tànn bi yëpp ma di sa ba ma defoon ca vidéo ndeysaan xam naa vidéo bi ñu bëri gis nañu ko. bu dajale woon mbokk taalibe yi nekkoon góorgóorlu yëpp bi ma ko defee ba noppi damaa dugg wan ko vidéo bi. bi ma ko wanee mu am ci ak ne ma nekk te sax man lii dama ko yéex xam waaye nii nga koy defee nii la baaxee ba tax na nekk na yow rek la jaawaloon ñu. ñu pare ci loolu. ñu tok nak muy laaj mbokk talibé yi ñu fasiyé yéene doxee gi di sa am bi mu leen di laaj ci sa kaddu gi nga wax né mom waxtu yi dara ko ñuy berne gaay gaa ñi ñi ngi toogoon ndeysaan boobu ci chambre à coucher di waxtaan ñu koy laaj ci bobu bi ñi bi bi bi gaay yi di sasu ku nekk di sax bo sasoo lu melni aw nak sax dara la dédé yow mën nga ko am ndax ni 17 avril bi bëgguma ñu ne ñun dañu nekk France nanga ñu defi nekk nangam bu ñu ko fi defee dinañ suur wala dinañu doy. Hmm. nee na li ñuy suur ak li ñuy doy ñu ne waaw mu ne bu kenn lijjanti. Hmm. yëf yi na jaxasoo ci biir kër gi ba fu ay romb rek di faqastalu ci bopp. waaw. nga xam ne moom nee na oh. yëf yi dàq ko rek ci ñu ne waaw nangami personne lañ bu ñu amee nangami nag wala nangami xam ne ñu war a suur. Hmm. nee na loolu suuf yoon waru cee neen waruñoo lijjanti ne lii fu ñu ko defee nangam ñii dañuy suur hmm. nee na nañu fi tasaaroo ci kër yi téwéy ne wal wali ba fu waay romb dal ci waaw barki sëñ Tuubaa moo tax li nga waxee loolu sama xel dellu si ci wax moom moom verde mooy biram te artiste yëpp xam te ndimbal li mu defal ba ñu bokk ci loolu déggoo mu ne bi mu demee ànd ak njaboot hmm. dem siyaar yi Serigne Saliou Kot hmm. ñëw def ndoxee na mu doxee sëriñ bi na ko ana li nga def loo ci dugg nee na mënu ko mbàkke sant si la mm-hmm. nee na sëriñ bi daal di soppeekuwaat mm-hmm. na ko bis ni ki tey da xam ni yàlla bëgg na yonent bi bëgg na sëriñ Tuubaa bëgg na loolu def ba yàlla bëgg yonent bi bëgg sëriñ Tuubaa bëgg nee na ko bàyyi ci loolu la ñu dugal ñun ñii ñëpp te jàpp naa ne nii yëf yi demee ren mooy moom lii la bëgg mm-hmm. waaw ah, moom yi réalité li mu bëgg mooy. fu ne di suus. ñëpp commencé di sant sëriñ Sall. te loolu mooy li am. Ah. mooy sa kër tey ma ngay jolli. boo demee kër jëwriñ ak kër gaa ñëpp. ñëpp waaye ne rek mi ngi doy. ñu dolli sama téléphone bi mën naa la ci jëndal ay vidéo yoo xam ne ay mbokki taalibe yu nekk Aix-en-Provence. Ah. ñii nekk Indianapolis. ñii nekk Malaga. ndeysaan na ngay dem ca ferme ya di jënd ay xar tuur dara ngir sant sëriñ. kon moom li tax li li nga xamante ni moom la bëggoon di bëgg ñu comprendre ko mu koy dox di ko wax di ñu ci soññ mu koy jaral muy faraan ak cant gi ci ñun di ñu leeralal pour bëgg ñu comprendre mel na ni lii tey war na lool ndax tey fu ay ne yaa ngi sant te loolu la ci jub ba tax na sa question bi sant naa ci bu baax a bu baax li nga wax ci jur yi moom nag la demee waaye mënta ñàkk ma présenté leen sëñ Mbacke Fall ah, di jaar Mbacke sëñ Bell ak sëñ As Fall mële nga xam ne ñoom dañuy suñuy mag yu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom lu ne rek ci lu ñu xalaat ci lu baax dafa dëgg yàlla yàgg ànd ak sëñ Bell boo xam sëñ Bell rek xam ko moom sëñ As nga xam ne liggéey sëñ Bell mos a def yëpp ñoo ak moom baax toll sëñ As Fall ba tax na sëñ Mbacke jëwriñ Bassirou Ka Bassirou Ka sama talibé nekk xew-xew ak xew-xew waaw moom daal nga xam lu ma rek ma ku yow fi jaaru na ma bu baax bu bu bu jëf te wax dëgg yalla léeg-léeg mu woma ci lo xamni dara du xew dama dama bëgg nangam ak nangam di ko defal te du ko yëg tabaski bu jotee damay jox sama tabaski màggal noonu tam tam xarit lay lu xew rek jëriñ Basirou ngi ñëw te loolu cofeel la gum am ci man di kilifa nekk tiwaawoon pël dëgg yàlla di di fa def lu rafet nag di fa sagal sëñ bejo ngir ma nga fa ne di dimbali nit ña waaw te loolu mooy àdduna waaw mooy li may wax rek tasfiya waaw dem ba dellu si xam ni ngay jaxasoog nit ñi waaw ku ci ne nga jox ko wàccuwaayam xool ni nga war a andeng mom tey ñi ànd ak moom ay ñaseen a ngi ci sunu mbokk ñaseen yi te loolu ak tasfiya ko man ndax boo ñëwoon di leen jéem jaay yéeg di leen wan ne ci li ma ne moo gën a ci li ngeen ne wala di jaay wax fa lañ la ñukk dem ne su boobaa li ngay def dox ku nekk day doxu doxam rek waaye ma xam àdduna ak bëgg lu rafet moo tax mu jaxasoo ñëpp waaw ba tax na dëgg yàlla mënta ñàkk boo fi teewee ma seedal la loolu waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf Fass ah waaw waaw salaamaaleykum sëñ bi naam cuun ah naam ñu ngi leen di ziar yéen ñi ngeen àndal def ngeen lu mat a def bisub cant man de li li li xam nga lu la rafetal sama njort moo di lii xew ci réew mi mbas mii xew ci réew mii ak ñii cant gi tase ci réew mi man de jàpp naa ne mbas mi day dem man loolu laa jàpp moom mii nag wax ngeen dëgg de yow day ànd nga ku mat a àndal ndax day xarit xarit da ko jóg ba noppi muy mu di xaritam bu mu doonee xaritam ba noppi nag nangul xalifaam bii ku nekk xam na ni kii moom mii bàyyi musul dem wëcc ko fenn ginnaaw loolu moom biir na kon la ma ko xamal bari la yàlla def nag moom la da di sama sang waaw yàlla def ba ma tuut tànk la ma ko woy juróom bu baax wii séddee fi nekk mooy sama sang ci wàllu bokk di sama sëriñ ci wàllu taalibe muy nit ku baax li mu nëbëti yow nag li mu wax nag ci yow ah wax dëgg yàlla ab taalibe loolu la wut ci sëriñam ngërëm ngërëm ngërëm kooku egsi booy Mapenda gis loolu Mapenda kii moo topp ci man boo gisee muy dox nii mooy lanu seet baay ak su doo ndey bokk ndey ak baay ñoom ñu du ñu sang waaye seen baay di mbirum mbirum sëñ Tubaa mbirum sëriñ Saaliwu la mbirum sëriñ Saaliwu la